ci ñëwaat ci liste yi Diallo Diallo y'a y'a pas plus faux que ce vieux là donc faut qu'on arrête quoi gis nga euh, saakante ñëpp a ko mën Oumou Diallo yu yorom si Yewwi lu yorom ci Khalifa Ousmane Sonko génn na ne Khalifa naa rien à voir ak la liste xam nga lu metti mooy nga ànd ak ñi ko xamante ne nangu jàpp ne moom du wax Khalifa ne mhm. a beau dire mu ne ñii samay jamais naa am deux voix je ne jamais man ko Khalifa làmmiñ du met du lekk moroom te ñorul yenn saa il faut que gën a setal sa der nit ñi xam. muy la je ne le ferai jamais. Mm-hmm. vous êtes content comme ça vous êtes pas content comme ça mais au bout de awa ah quand même ñun tamit on a des familles. maanaam li xalifa di nangu yéen du ngeen ko nangu. waaw nee naa ko xalifa yow sa affaire om d'état yooyu ak doo wax <laughs> ici c'est pas un état la politique. Mm-hmm. su la neexee dans yeewu nga jël loolu mais dans le périmètre où je suis où tu as fait de moi ton référent il a des choses que je n'accepte pas. mais justement Abba certains disent que Abba Mbaye a changé. Euh, euh, parce que Abba mosoo wax yëkkati kàddu. Mm. Abba say paroles toujours dafa daan mesurer. Mm. mais tey yu ma déggoo nga ne y' a pas plus faux que Mamadou Lamine Diallo. Mm. quelqu'un boo xam ne il fait partie des plus grands économistes de ce pays. qui est là depuis xaw ma combien d'années. dafay xaw a jaaxal nit ñi. Abba quand il parle dans ce pays là dafa am luy ñëw lu nga xamante ne gis nga dëkk bi moom la muy jàll bu ñu bu ñu waxatul dëggam moom du awa ce pays va aller au mur. Mmh. comment tu peux m'expliquer deux cent candidats à l'élection présidentielle. pour lan pour ku nekk après dem négocier. mais comment un président peut continuer à négocier à négocier à négocier kii deux postes kii trois postes mais mais man ak yow a yem barki démb bi may ak sama doom sëy la laa wax dama ne mais mais lii ku ci am juróom nooy def les parents sont fatigués les sénégalais sont fatigués mais homme politique xam leen sonal poste xëccoo et pour corriger la politique au Sénégal il faut que les gens acceptent de fair des sacrifices mais sacrifices yooyu il faut commencer par la politique. Mhm. parce que tey moom awa am na ñu ñuy bay bayal di ko bàyyi mu jóg mais plus ñuy avancer muy yéeg ñun bi ñuy campagne 2012 mooy li xale yi di wax tey naan tey. Euh, nit mën na ñëw fekk Khalifa Sall muy wax nga filmer ko ne ko Khalifa Sall yu tax nga def lii et les gens pensent que lu bees du lu bees de. Hmm. ñun 2010 fi ñuy campagne fii ay nit dañuy ñëw fekk Ousmane Tanor mu tax ñun Ousmane Tanor Dieng waroon nekk candidat nga waroon bàyyi Khalifa bu nekk candidat yow mosoo gagné moom day gagné te pourtant amoon na ñu mu choqué woon ñu taxaw ne ko mais yéen du ngeen lii du lii du teggin. Hmm. lu ngeen mën mooy kii su ngeen àndee amoo que police Sénégal am nga droit saaga politicien bi am nga droit xas ko parce qu'il a exprimé une opinion am nga droit sax taal këram. Mm-hmm. mais si dans deux ans trois pourtant, ans. dans deux ans trois ans si on ne règle pas du chômage des jeunes xale bu am fit jël gaal jigi géej gi le jour où ces jeunes-là se tournent contre l'État da ngay gis politicien bi doon oto ñu ay oto bi wàccee ko duma ko.